إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكي جلي في وكي تالي من الدنيو من القرم من الدوكر من الحق من النيانا تساقو شيء النيان سنت كامل سنت برمبي جل جلاله عز وجل munu may nu daje fii te dara taxul lu dul ngir jëmmam ci cadre lislaam ah ci yoon wi yoonu murit di sant kon borom bi ci jàppandi bi ñu jàppandi loolu xeet ñu ci ndax nit lépp lu mu dugg te jéemu koo xam ba xam nam cay duggee nam cay nekke lam cay jëfe xam te ji nga bërëb ba mën na ca son te njëriñ li du toll na mu war a toll ndax li nga xam ne mooy li ànd nit ba lépp lu dugg jële ci njëriñ la ca nekk lépp te bu ci duggee te àndul ak loola coono la ci am borom bi tabaraka wa taala xañ ko njëriñal loola lu ma tax kon loolu lu ma tax xam na sëñ bi daf ko bind daf koo melowoo bind ko santaane ko xam ne ko ba mu leer mu di melow ñu jullit war a melowoo te loo xam ne ku dégg baat bi mu nuru la lu woyof lu ñëpp nekkee loo xam ne daanaka soxla war a waxtaane fekk sore na loolu mooy li gën a diis te gën a jàng gën a mat a xam mooy melow jullit bala ngay agsi ci melow taalibe ndax ak taalibe ci biir cadre lislaam la nekk bu lislaam di taxawul taalibe gi du taxaw taalibe gi it dafa am melow mu laaj te melow yi dañ ko war a xam jéem ko melowoo moo di jikko ju rafet mooy melaw xol melaw xel bi meloo ba nga xam ne leer gu jóg wuti ko dugg ca te dootu génn ay bu jóg tey lor nit ci addunaam di ko lor ci sukkuraat di ko lor ci kiraayu bàmmeelam di ko lor di pénc bu ñu taxawee di dox digganteem ak texe gu dappetoo nekk ci sàggane loolu la mooy alxuluqul xasan sallallahu alayhi wa sallam nee na ji rafet lay njëkk ci balance yomul xiyaame gannaaw moom lu ñu di ko teg ci balance te nee moo gën a diis ci lu ñu peese ëllëg moo tax di ko jëlee fekk teggin ci la tàmbalee ngeen lii jàngee eh, nas jul moom tudd naa ko ci ma téere nas di xabaar na rek la ci sëriñ jàngale xam leen na ci bopp bi lépp lu ñu dugg te àndul ak teggiin du ca jëriñu boroomi teggiin ku jege yàlla la ku jege yonant bi la ku jege àjjana la ku sori safara la ku amul teggin lépp lu mu dugg yàlla du barkeel loola te ki nga xam ni amul teggin ku sori yàlla la ku jege safara la ku sori àjjana la kon defe naa ne teggin mooy li gën a bi nag daf ko jàngale façon wu jàngale wu nekk ñi mu ko doon jàngale mu topp leen di leen sàmm di leen seet ba xam teggin yooyu mu jàngale melowoo nañ ko biir bitti wala déet saa yu nekk daf leen daan jàjji waxtu woo xamee ne teggin yi ndax yara ci jiitu ak teggin ci alxuluqul xasana ji ma waxoon mu di jikko ju rafet li ci tegu mooy yéene yiw bépp jullit bu mu doon nga yéene ko li nga yéene sa bopp ku la tooñ boo mu ne jéggal nga jéggal ko lu diis la ci ëllëg bu ñuy peese yiw yi ku la wan gannaaw nga jéem a jox ko moom jox ko mbokk bu dee jullit ku la xañ nga jéem koo may nekk di ku bari njariñ ci ñi la wër ndax ki bari njëriñ donte yéefar lay suñu borom du ko lakk mukk kon loolu ma solo la bokk na kon ci melooy xol yu rafet yooyu nit war a melowoo béréb bi nga nekk ak li la wër ñi ngay jëflante ñi ngay dajeel ñi nga dëkkal te gin yi mu ngi tàmbali ci sa jëmm sa jëmm jii te di ñi nga ko war moo di na fexe ba tàmbalee ci set sa jëmm set li ngay sol set fi nga nekk set ngay nekk ku saxoo tur yàlla tàmmal sa lamiñ bi wax ju rafet wax yiw sëñ Tuubaa nee na wa awwidi lisaana qawla alxayri tafuz bihi wa tukfa kulla dayri li qawli sayidil wara man kaana salla alayhi rabbuhu idmana na nga tàmmal sa lamiñ bi wax yiw ju rafet bu ko defee da nga texe ci sabab ak lamiñ wi te daañu la fegal bépp ay ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku gëm yàlla ak bis bu mujj ba na ngay wax wax ju rafet wala nga noppi bi nga tàmmalee sa wax ju yiw tàmmal sa jëmm ji saw doxin sa waxiin saw nekkiin nga meloo meloo woo xam ne foo nekk du ñu la xeeb du ñu la yàpp du ñu xeet du ñu yàpp xeet wa nga bokk du ñu yàpp dëkk ba nga bokk du ñu yàpp diine ji nga nekk ñu xam ne diine ji nga nekk defar na la ba amul lenn lu la nit di xeebe ndax nit ki bu fekkente ne boole na cet ak yarute ak wormaal nit ñi ku ko ci xam ne nit ku mat a ngi ku ko ji dana xam ne nit kii kat diine ji mu nekk yar na ko def na ci moom dana bu ngeen seetee ñi nga xam ne ñoom la sëñ Tuubaa yaral boppam radiallahu taala anhu kenn ku ci nekk melo wi nga melowoo bërki démb rek laa ko doon wax doy na lekkoon boo jaxasoog moom da nga ci melo woo xam ne mooy melow coono ëllëg mooy melow tiis dispenci ba dem ci melo woo xam ne mooy melow yi àddina ak alaxira doo sonn ci barsàq doo sonn sukkuraat doo sonn ci taxawaayu dispenci ba mu di nit ñoo xam ne ñu ci ëpp dañoo jàng ba xam li leen war lépp am teggin yu mat sëkk am yar boo xam ne ak woyof yéene ñëpp jàmm li ñuy wax rëy sori leen li ñuy wax añaan rëy sori leen li ñuy wax soxar sori leen loolu lépp sori leen bu fekkente ne nit ki dafa woote ne jullit la yemu ci ne murid la fu mu dem war na nekk royukaay te loolu li koy waral kenn juddul sotti nit ku nekk am nga sas wala yàlla sas ci sa bopp boo xam ne boo ko defee da nga mel na yàlla bëgg yonent bi bëgg ko sëriñ bi nga yaakaar bëgg ko nit du sàggane boppam boo tàmbalee ci farlu ak roy ndax nit fu mu toll dafa war a am bind bu tooy ku muy roy ku muy seet fu mu toll war naa am ni nga xam ne war naa am kilifa fu mu toll war naa am aada jum saxalal boppam war naa am ay royukaay royukaay benn ngay dund ak ñoom di leen gis di roy ci ñoom boo ko gisatul du ñàkk nga gis ku tane ci wet doo doo ko tane woon ci geneen wet wet gëm la tane nga jéem koo roy loolooy taxam nag ba mel ne moom ndax sëñ bi nee na fa lay sa alal majdi wal makramaat ida jibtaa xaajibun yaxjibuk ida ajabaka xisaalu mriin fa kun minhu yakun min ko maa yuxjibuk minhu maa yuxjibuk bu fekkee ne nit yéem na la wala mu jaaxal la ci mewam na nga jéem a roy uh, roy lu ko rek amul dara loo xam ne mooy tere nga àgg fa mu àgg na mu mel boo ko tàmbalee te wéy ci rek àgg bu ko defee taaliba bi murit bi du dund dundu baahima dundu baahima mooy boo soxlaa lekk boo xiifee fexe loo lekk boo maree fexee naan boo gëmmentoo fexee nelaw boo sonnee fexee noppalu boo ñàkkee fexe am boo denc dara fexe loo loolu ñu bàyyi maye yëpp ndax bàyyi may bu ñu xiifee bëgg a lekk dañuy fexe lu ñu lekk bu ñu maree fexee naan bu ñu seenee fexee noppal bu ñu gëmmentu ku koy def bu ëllëgee waxuma la taxawaay waaye bàmmeel aji ñàkk nga cay doon doo añ doo reer doo ndékki te loolu la dara ko gannaaw nit ki fii ci àdduna bii lay liggéeyee ëllëgam te nit ki mën na defar boppam ba lépp lu mu def ak jaamu yàlla lay doon faral nañ koy wax loolu bu lekkee lekk gi jaamu yàlla lay doon dañ ko ci bindal tuyaaba jox ñu fenn mu naan noonu mu yére noonu mu nelaw noonu mu waxtaan noonu war naa jàng yoon bi nga xam ne ci la war a jaar ba am loolu bu am lu ne jeex ndax ëllëg nit ñi wuute nañu ci te rawante ci melaw ñuy dekkee ñii ngi dekki sañse ba jekk dara du leen manqué ñii dekki am nañu tubay ak dal ak mbaxana waye simis lañuy sol ñi mel ne ci misal suwetement la ñuy sol ñi tubay kese lañuy sol ñi duñu am dal duñu am mbaxana duñu am tubay dañuy ngembu ñi xaw fàlle dong nga leen wër ci seen ndëgg ba bay bëy yeeg xar yeeg nak yi top ñom di leen ré kon ku bëgg bu ëllëgé bo déké jekk woomal bul fàtte sa ëllëg bu la tey fàtteloo ëllëg li nga xamee ne kon ah jullit bi ak taalibe bi defar nañu seen bopp ci biir ba kenn du leen xeeb kenn du leen yàpp ndax boo fexee ba ñu yàpp la wala ñu xeeb la xeeb lu nga diine ji nga nekk xeeb lu nga réew ma nga ma nga bokk xeeb lu nga jiitam xeet wi xeeb lu sa bopp loolu lu ñu war di dindi la li ci ëpp dañu ne da ngay wattu sa boroom wattu sa moroom nag sa morom lu jot ndax sa borom ku bari yërmande la bari na njëkkal daan ko waxtaane mën nga ko tooñ mu jéggal la nga def jénn jëf rek mu jéggal la li nga defoon lépp sa moroomum jaam mi nga xam ne nag dafa lot ne yow ëllëg ngeen daje ca bis ba la mu am doyu ko mu jaaxle ku ko ameel bor du la ko baal daf lay fayu de loolu moom na wóor faral na nuy laa biire naan ku bëgg xàq yi ñu lay topp wàññi ko na ngay faral def foo jullee wala foo jëfee genn jaamu yàlla nga ñaan ñaan goo xam ne dañ nga koy yéene ñi nga amee xàq ñëpp mu féete ca xàq jooje moo xam fatiha ak ay ay kursi wala lixlaas wala ay salaatu ala nabi nga yéene leen ko ndax ëllëg kat bàyyi ma yi sax ku ci tooñoon sa morom daañu leen àtte xar mi saxoon béjjën mbëkk kuy amul béjjën fii bu ëllëgee ki amuloon béjjën lañuy saxal béjjën kale ñu dindi ay béjjënam ñu mbëkk ko nañ ko mbëkk yoon ba nag ñu ne jëri def suuf te nañu doomu aadama bu doon jihaar bañ rey ko ci yoonu yàlla suñu borom dekkal ko mu dellu di jihaar bañ rey ko ba muy ñetti yoon it féeg bor a ngi ci baatam du dugg ak mukk lu jéggi si rat dafay bor mu ko fas yéenee mooy la mu jaamoon yàlla wala bu jeexee amatul lu mu fayee ñu fab bàkkaaru ñoom tooñoon gannaaw loolu li ma wax ne teggin ak melo wu rafet bokk na ci teggin jëf yu rafet ndax suñu borom tabaraka wa taala guddi aljuma gu nekk guddi altine gu nekk jaam bu ne daañu fab sa jëf wan ko ko fekkee ne jaam bu xam boromam nga da ko da xalaat loola ba ko daanaan def yonent bi sallallahu nit ki ak bàyyam bis bu nekk ko woon seeni jëf bu jant sooyee daañu ko yow yonent bi day kii bokk sa xeet wi lii la yendoo jëf wala muy suba ñu ne ko lii la fanaanee jëf sa baay ak sa ndey ñu ne leen seen doom ji de jëf moo tax sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen di rafetal jëf ngir ngeen bañ a gàcceel seen i waajur yowmal xiyaam ndax lu ngeen jëf daa ngi leen ko wan dañu ñu fekk ñi ñu dendal daa ko jëf gëmm ji nga xam ne teewlu na ci xolam ni di muy jëf kat béréb bi muy jëfe lii dana ko seede ëllëg cër yi koy jëf daañu ko wax ëllëg bis bi ci boppam dana seede ëllëg lii ngay jëf ni ci man la ko defee woon jant beeg weer wi daañu ko seede ak ngelaw li boo dee sàmmoonteeg moom bu ëllëgee boo fi jógee waxtu wu ñuy rocci ruu malaayika yi nga xam ne ñoo koy teertu si ak melaw rafet bi ñu nekk ak ni ñu ngay bëggale ba nga jàlloog loolu lépp bu ñu nekk feeñu laa delloo àddina nga dundaat yàlla la tere mukk adduna jooju nga xam ne ay kiisi kese ak i soxla yu lay jaaxal aki i tawat ak xuloo xeex ak bañante ak coono ak ñàkk bëgguma ca dellu sax leen bu ma ca dellu mukk moo tax ñu ne man ahaba liqaa allahi ahaba allahu liqaahu ku bëgg a dajeeg yàlla ëllëg yàlla dana yàkkamtee dajeeg yow yow ëllëg ba teral la jëmm jooju jànloog loolu ci kanamam te du wëlbatiku mukk faw mu àgg ca muy lu rafet dana sopp dajeeg sama borom ndax xam ne bu dajeeg yàlla dana am sax nopp yi muy gis waaye man kariha liqaa allahi kariha law liqaahu koo xam ne itam jëf nga jëf ju ñaaw nga xam ne ëllëg jëf jeex na dabaatal jeex ne tuub jeex na nga ne jàkk ca la nga jëfoon nga sib àgg ci bi te faaw nga àgg ca da dal di sib yàlla nga xam ne loolu rek nga fi fekk bu ko defee yàlla it sib dajeeg yow xam ngeen da cay tegu man kariha liqaa llaahi kariha llaahu liqaahu te àdduna ba ñuy agsi ci noon bi xam ne moom la sëriñ bi doon laaj léegi mu di seytaan àgg ca da ngay dal di sib dajeeg yàlla nga xam ne loolu rek nga fi fekk bu ko defee yàlla it sib dajeeg yow xam ngeen da cay tegu man kariha liqaa llaahi kariha llaahu liqaahu te ba ngay agsi ci noon bi nga xam ne moom la sëriñ bi doon laaj léegi mu di seytaane adduna ci boppam mbokk na ci ñeent noonu ñuy faral di wax ku ñu li ñu ñi ñuy wax mahjub mahjub mooy koo xam ne kiiraay dox na sa diggante leeru xol ak màggug suñu borom bi ku umpale suñu borom ko taala doonte jullit nga yaa ngi jullee ko woori gannaaw mahjub nga maanaam dindi wuñ say kiiraay amuloo al fatxul akbar fatx bi nga xam ne mooy tax nga jàlloog secret yi jàlloog asamaan yi juróom-ñaar ak li ci nekk jàlloog malaayika yi jàlleeg ruuxu yonante yi jàlloog arasa kursi yu ak lay bëgg a xew démb ëllëg la xewoon démb te ba nga juddoogul ak li ñu nar ci at mi ak at yi ca tegu ak ni ko sama borom bi dogalee jàlloo googu moom yaay mahjub mahjub nag ay daraja la am na ñoo xam ne am nañu kiiraay yu tal ba gëm gi sax lu wala lu woyof lay doon mahjub moom waxtu wu xamee ne nee na jàkk adduna day nekk jigéen ju màggat ju bët yi doy xëpp sew ruuj fam ba ñu ne sànni mu bejjaaw ba weex tàll ñaaw ba bëgg a dee bu yomal xeyam jotee nag ba ñu taxaw ba taxawal àdduna ci jëmmam jooju wan ko jaam ñi leen xam ngeen أعوذ بالله من الشيطان لا حول ولا قوة إلا بالله yàlla mosal ci ki nga xamul ko mukk lii mooy àdduna jigéen daan xëccoo ak jigéen daan xeex mooy àdduna jëleen taxaw na wàcc fàtte yàlla tax di la fàtte ëllëg mu ngi nii kat àdduna day tax nit ki fàtte boppam bu fàttee bopp mooy mu fàtte yàlla bu fàtte yàlla yàlla fàtte ko yàlla moom du fàtte waaye day jëflante yow jëfandikoo fàtte. fàtte sa bopp mooy fexe ba xañ sa bopp xéewal yu mag yooyu nga xam ne lu néew a dox sa digganteeg yow boo xamoon ndax li des dox sa diggante mooy li des ci biir te xamuloo ëllëg la xamuloo tey la xamuloo kañ la mën na jege lool te loo ci xam dara. nga jaay nag loolu dul jeex mukk nga xam ne xajul ci asamaan yi juróom-ñaar jëndee ko loo xam ne xamuloo da nga ko jëriñoon de te du dara ndax ñu koy faral di wax rek ka gën a xew ni ci adduna ci daraja ëpp ci ci alal gën cee tedd ci lal lal faatu lal bi muy dee loolu lépp fàtt na ko mun na ne mosu ca woon a jaar ñi nga xam ne ki gën a am tiis ci adduna naqar ak métit bu tëddee ci lal boobu rek fàtte na mboolem fu mu jaaroon ñooy ñoom ñaar ñooy ñooyam képp ko defee nag kële woon moom bu jaamoon yàlla moo perte ki jaamoon yàlla nag doonte gis yooyu la la jànkoon teewalem dëkk ak moom it bi mu juddoo ba bi muy dee dund juróom-ñett fukki at itam foofu bu fa ba mu fa tolloo naqar yi passé na fàtte na ko jeex léegi ci saa ci sukuraatam ci tàmbali jëllu ko waxam lay tàmbalee dugg ci xéewal yoo xam ne du dog mukk te xéewal bu ñë gën a màgg moroomam ba àgg ci nguur gu mag mooy suñu borom su ñu waxee ida raayta xam raayta naiman wa malkan kabiran boo gisee foofa da nga gis xéewal ak nguur gu mag xam ngeen loolu lu doy waar la yar na lu ne fàtte sa bopp mooy li ñu tàmbalee woon waxtaan nit ki li ko war ci digganteem ak boppam mu sàggane loolu lépp fàtte na boppam boo fàttee sa bopp yàlla dafa lay fàtteloo boppam nga fàtte yàlla boo fàtte yàlla yàlla fàttale fàtte ci xéewal ak ci njëggal maanaam bañ lay doon moom lañ waxee noonu adduna nag géej la boo xam ne ñu bare bare bari lap nañ ci li war di njëkk di ittee nit ki mooy fexe ba bañ a ci adduna te mooy say mébét yépp di mébétu adduna nga nekk ko ci ba ba ngay dee mu dox sa digganteeg fàggu ëllëg nga ne ci mébét yi rek bu weer bi dee ma am nangam bu déwénee bu nangam jotee ñi ngay bëgg yëpp nga aj ko ci jamono joo xam ne wóoru la da nga ko fekkeem déet te dana tax doo ko ko ëllëg ko tax suñu borom tabaraka wa taala dana yërëm ak jaam bëri ko ci teg ko ndax mu bëri yooyu wàññi ko ba mu delloo si xelam tax li gën a bari ci ba mu dal jullit xéewal la ko xam ne gii suñu borom daf ko jaam de teg ko ngir mu dellu si muñ bim ko muñ nag tuyaaba la joo xam donte jaamu na dund bi du ko am wali bu doon doxantu di dox yàgg mu romb wali boo xam ngi rek ban naaju jot ko te lu taxul fekk kër bi mu nekk mu nekkoon rek di su xamal ko ne kat war na at mu gis ko ci basiram muy nit ku yalla teral ku am ay maqaama fa yalla ku yalla fonk mu continué fa ko taxoon a jóg ba mu demé bay wàññiku romb koku mu romboon fekk nga ray ko ba diko lek ku gay ni gi lek mu jot na moom seen ni ku gay ni gi lek mu daal teggi delu ko pour mu yàlla def problème lo xalat nit ki man ben neewoon nañ ma lay ñeent fukki at na ko dundaat di ko jàmm yàlla xamaloon nañ ma nit ki ah, ñu teraanga jëm am ci suñu borom loolu jaaxal ko lool da intrigué ko te dafa guddi suñu borom xamal ko ne ko ñun mu jooju waroon a dund ñeent fukki at seet nanu ba xam ne ñeent ak yooyu lam ca war a jaamu ba àgg ca màttew ba muy yóotu dana tiis te mën naa juum benn njuumte bu néew tax du ca àgg ñeent fukki yooyu mag mu dee ma gis ne dara mënu koo jotale ci martaba boobu lu dul ñeent fukki atam yooyu ma far ko mu dee tey ma seet ne dee gi dee gu tiit la war a dee mooy mën a tax mu àgg ca maqaam moomu mooy gaynde rey ko lekk ko mu ànd ak doyadi ko xam ne kii gaynde rey na la di la lekk ñuy jàllawum ak doyadi la suñu borom noonu mu wàññee fanam bi noonu ko metti ci gaynde gi ak noonu mu ko doyee dalee ci gaynde rek lekk ko rek ko lekk ko tax mu àgg te martaba boobu waaw ji nag bokkam soog a ubbi ko xam ne mbir islam borom taala yóolu ji leelek bin nahar wa yulij naar bi lay yuxrijul hayya min al mayt yuxrijul mayta min al ci biir ndund di génn ndindi ci biir ndee day dugal lëndëm ci biirub leer di génne dugal leer ci biirub lëndëm te dara du jaxasoo lu ci nekk fam ko natt rek fa lay jaar dara du su fekkee ne jaam bi mu ngi góorgóorlu am na yoo xam ne yi moo koy jàcci li ko xelam demee kon nit war na fu mu toll rek am loo xam ne lii daf koy fàttaliku ngir loolu di ko jàjji ndax loolu xéewal la goo xam ne bokk na ndax nit ki bu fekkee ne amul fu mu toll jëmm joo xam ne daf ko rus ragal ko di ko jaare yoon lu mu def la du noonu mu dal ci kawam tànci ko xas ko ba mu torox bu ko amul war na di fàttaliku loo xam ne di ci kanamam wala ci gannaawam war na di toog di fàttaliku bàkkaar bu mu mas a def ngir mu gecc ngir mu gën a tuub ngir mu rus ngir mu gën a woyofal boppam ba du rëy rëy war na xalaat itam di ci kanamam muy tawati ndee sukuraat ak ni mu demee ak kiraayu bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàmmeel de am na nekk gu muy nekk nit yoo xam ne amul kenn ku say mucc ngir fekkoon ne am na kenn kuy mucc ci tënc boobu bàmmeel bi di tënc nit kon saadu nu Muaaz dana ci mucc ndax saadu nu Muaaz tey ba mu faatoo juróom ñaar junni malaayika yoo xam ne benn mësu cee wàcc ci suuf ñëw na ànd ca jàkk ngir tedd nga gum tedd ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam istazza al arsh li mawti saadin arsh ci boppam jaayu na ci deewuk saadu nu Muaaz bi teewul Saad ibn Muaaz googu de bàmmeel tënk na ko bés ko Zeynab doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu koy dencee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xar bi dafa ñëkk koo gis xam ne am na mu ne ci moom ba mu yàgg mu daj biñ ko laajee mu ne dama fàttaliku sama doom jooju la fàttaliku tënc bàmmeel ma ñeewante ko ba ñaan sama borom mu woyofalal ko ko Saad ibn Muaaz xam ne juróom-ñaar fukki junni malaayika wàcc nañ ci deewam gi ci kaw suuf mukk benn sarbet ci sarbetam yi musuwaar ci musuwaaram yi am na daraja xam ne moo gën adduna ak li ci biiram teewul nag bu yërëmee jaamam te jaam bi yenu yen bu ci ay bakka ak xaq dana ko di faral di teg lu tiis wala mu metti sukuraatam moo tax sukuraat kenn mënu caa xam ki texe ak ki texewul yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu mu fi jógee dafa daan hmm, dee am na waxtan de dee am na waxtan de waaye nag dañu ne dafa yóbbaale waxtanu ndee ci xeetam yëpp ku ci nekk ak la jëlal ndee sukuraat dana metti ci ulamaa wal aamiloon yi wala akabirul awliya yi ndax yi koy tax a metti yii benn si njaboot bi ñu fi bàyyi xam ngeen ne fii daañu wax ne nit dana di siisu bu ñu ko yëkkatee mu diis bu fekkee am na ku mu bëgg ku fi nekk bu gannaaw bu dee bu ñu ko bëggee bu ca bàmmeelee noonu nga xam ne kon bu ñuy génne roox gi roogi ci boppam benn dana tiisoo bërëb bi mu daan jaamoo yàlla te léegi jaamu yàlla jeex na ci moom dootu jaamu ci yàlla du néeg a génn ci béréb boobu muy dëgër dëgër loolu dana yàggal sukkuraat dana ko metti njaboot yi muy bàyyi ak taalibe yooyu xalaat gi mu leen di xalaat du néeg a dem wacc leen fi te seytaan yi ngi te bari na doole te xamul lu koy wuutu gannaawam dana tax muy daas daas lu roo gi dëgër dana metti sukkuraat suñ borom yërëm ko fekk am na bàkkaar ni ko naroon a mbugal ëllëg ñu dajaleel ko ci sukkuraat si mu metti bu deewee set becc bu demee ci bàmmeel mu leer dana metti ci kuraat bu loolu weesoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ruux aji gëm buy génn day mel ndax luy seet ndànk ndànk lay génn ba du am métit muy waaye génn dañ koy péq péq bu métti ñu ko ñëw koy rey mbaam mu ni naka noonu nit dana jëf jëf ji baax yoo xam ne dana tax ñu woyefal ko sukuraatam ba mu woyef toy toy toy toy ba nga xam ne bànneex la ci nii day mel ko gëmmeen ko dina bëgg a nelaw rek noonu lay mel alayhi xam ngeen ne ku ku la bu borom nit ci bu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak Ibrahima Moussa gën ci mbindeef yalla dindi yépp bi mu faatoo te borom basiira gis ko di ko laaj na na yow ni nga ragale woon dee dee na mu mel mu ni mu mel ni picc moom mu nga teg ci tool bi ñuy lakke ay beñe ak yooyu muy jëllar bi ko lu mucc te lu dee génn ci métit bi noonu tool bi tàng keneen laaj ko mu ni mu ne mu ne kashaatin tuslaqu wa hiya hayyatun mu mel ne gàtt bu ñuy fees te muy dund ñu di ko fecc noonu muy nekkee ci moom na Aïcha radiallahu taala anha nañu yor nañu jaas muy xale bu tuuti romb ko mu jooy soo dugga dee su ko looy jooy mu ne yërëm xale bii rek ci najub bàmmeel ci tëj tënk ci di bàmmeel bi tëj sallallahu ko waaw naa kenn ci googu naa xaasim sa doom bi sax ci mucc mu ne du xaasim du Ibrahima amul ku ci mucc yéene ji rafet nag ba tey bokk na ci li nga xam ne dana xett nit ndax yombal xiyaam fi téere yi wàcce kenn ku ci nekk téere bi nga xam ne li nga mas a def set bind nañ ko ci baax lu baax muy bon te danga ko jàng ca kaw ñëpp di dégg lenn ci kanam wala sa ndeyjoor ngay aji texe wala mu rab ci sa gannaaw wala ci sa càmmooñ ngay aji bañ a texe laa qadrallah doomu adama dana ubbi téere bi gis ci yoolu aj te musu la aji yoonu goreel jaam te musu la goreel jaam yoonu saraxa nangam ci alal te musu koo def ñu ne kii la du sama téere man lii def ma ko ñu ne ah kon jullit ma amoon alal danaa aji te muy dëgg ci moom ñu bindal ko yoolu aji ki ne man de alal ji di am bu ma ko amoon maa ko bëggoon a am ba def ci lu baax dimbali ci lislaam dimbali ci ci yoon wi fàttali ci way néew bi doole yi wax kooka dana mel ne am na ko te def na ko dañ koy dimbal ci téeram kon kon nga xam ne yéene ni ma wax woon ne yéene yiw lu ama ama am doole la yéene yiw bokk na ci meloo ngay wax yar bi nga xam ne moom la sëñ Touba santaane bokk na ci teggi ni looy tàmbalee def waxal bismillah bismillah yoonal nañ ko ci yu bari seytaan yi ngi taxaw mu nit ci lekkee su ñëwul bismillah mu mel na ndox dugg ca ñam wa ànd ak ñam wa dugg ci xolam tàllal ñoo xam di lump xoluwaa ji di ko ëpp di ko jëkkal lu bon rek xelam lu bon di ci nekk loo xam ne ni topp bànneex la ci nekk mu di ko bëgg benn mu daat daat góor góorgóorlu bañ koo def wala mu def ca tuuti wala mu ne ca liggéey muy tëdd ci laram ñëw bismillah seytaane tëdd moom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 ndax azza wa jalla màggam gi mag gu yemul fenn kattan gu yemul fenn kawe gu yemul fenn rëy gu yemul fenn dafa jombante woon ak sax leneen di am ci wetu yàlla du rëy rëy goo xam ne moom rek mooy am leneen du am dara amul وهذه المشيئة الإلهية وحدث من وحنا كنت أن كنزا لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فبه يعرفوني ولا فبه يعرفونني لما نكون نعمل وخمنا كن خموما ما بقنا نخمم دخترمي مكي ak melom yi dafa war am ay ajuwaay fu mu ci limu muy ma dal di bind bindé fi xamal leen sama bop ci man lañu ma xamé ma tax ñu xam ma mu mel naka ci kuy xalaat daf naan suñu borom kon foor gi mu fooroon ba bu amee ba nga dafa moom dafa musula ñàkk musula ñàkk am fu mu toll mu ngi am te dara leneen la am ci wetam leneen la am ndax di bokkaale moom ak di am yàlla di am lenn di am waaye nag masia ci boppam moo taxaw taxawaayu bëgg googu fa ahbabtu an orafa ma bëgg ñu xam ma maanaam masia moo aju ci loolu te masia suñu borom jombe naak lenn mu aju ci lenn te loolu amul mu ne kon mu dal di sàkk ay mbindeef xamal leen boppam ñu xam ko nag di xukmil masia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 boromam ñooñu di yonent yi ak malaayika yi ak ku ko soob ci jaam yi xam ne ñooñu ñooy martaba yi gën a kawe ñoo fa àgg yi xam ne àgg nañ suñu borom xam ne dara ko fa àgg lu lenn bind loo xam ne dara ko àgg foofa ñooñu nag bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala jox na leen daraja jooju mu sàkk jeneen daraja joo xam ne àggul ci ñooñu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 jullit ñu doyat yi ak ñu ci des ñëpp mu bind leen kooku mooy almahabatul amma bëggeel nga xam ne mooy cosaan ndax bëggeel googu mooy iraada iraada moo di nammeel suñu borom dara forcé wu ko ci bind yéefar yeeg seytaane yi moom la sopp coobare googu mu nga xam ne daf koo sopp ba mu bind leen bu amoon leneen lu ñëw bëgg ci fonk dara wala mu di ci rey dara loola tooñ na kon bëgg mahabatul amma googu lépp lu am rek dugg na ci biir bëgg googu ba tax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 yaram wa ngi sabbal sa borom sabbal go xamne borom basira bu ne dana ko jël fi ci dakaru ci pharmacie pharmacie gi gox bobu amna ordonnance dem di jënd ordonnance bi bim ko wone madam bi ben madam nek fa bu mu génnee garab yi nga xam ne moo nekk ci ordonnance ba dajale ko téye ko nii si ñaari loxom di ñëw mu dal di dégg yaramu madam di lépp ni muy sabbaa ba mu des xol bi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 tëral sariya ci àdduna waaye lekk waralul suur yàllaay suural ndagg bopp reyul nit yàllaay rey nit safara lekkul dara yàllaay lakk nga xam ne nag kon sax dëgg nga xam ne ñoo nekkoon ci martaba bi ma njëkkoon a wax ñoo lab ci gi tawxiid yi nga xam ne yëgatuñu nekkul lenn ci àdduna lu dul yàlla seen xarit xamatul nekkul lenn lu dul yàlla seen nopp déggatul nekkul lenn lu yàlla daanu ci wax tuuti insha allah bëgg googu nag nga xam ne mooy almahabatul amma nga xam ne suñu borom tabaraka moom la bëgg lépp lu mu bind ca cosaan nga xam ne kon li ñëwaat gannaaw buñ dee jàng alquran gis waaye manasiru aada allahi ila naari ak suratul xasri boo ko jàngee waa banu qaynuqa banu nudayr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 nga tooñ ñu war laa yar wala yoon dal ci kaw rek la nangu ñu dale ci kaw nit ki waaye lim bind lépp naaw bëgg na ko mayul kenn nga di ci jëfandiku loo xam ne lii jaaruloo ko ci yoon moo waral wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu xayrun bi ñu rey Seydina Hamza ci te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci moom fekk ñu xuuf bakkan bi xuuf tuñ yi xuuf nopp yi takk nas ko def ci ay caq ak i teqal ma Hind bintu Utba jiite leen xotti biir bi yéey res a yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu doon mer mer na mer moo xam ne nee na bu fekkente ne jekku naa waa Quraysin dana japp fan wer ci ñom daggat leen médital leen def leen nii alquran dal ci kawam wa in aqtu fa aqibu bi muslima aqtu uqatum bihi wa in sabat lahu khairun lisabirina buñ leen toñe ngeen di fayu fayu leen di tonal leen ngeen fayon rek bu fekkone ne suñu borom bu bëggul woon yéefar yooyu ci al mahabbatu al amma kon yonentam bi mu gëna fonk du du bu meditalé kenn du tax mu diko ko te itam kon suhayl ibn amr mom mu ne won du ma ci bañam yi diko ko ndax suñu borom dana médital bu ko bu suñu borom bu gul won kon mbind mbindeef yi te suhayl baba yeefal la bu ko suñu borom bu gul won du ko jaral mu diko fayu ci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 suñ borom bëgg na ko min nëbb na yërmande joo xam ne duñ ko waxtaane cheikh abu isid bustami def na mu ak suñ borom tabaraka wa taala mu baasata mooy lan xam ngeen ne jullit ñi xam dañoo bokk ci amatu naas am na ñaari xaal mu di ak raja ragal ak yaakaar jullit bi léegi dana toll jamono boo xam ne ragal gi muy ragal yàlla mooy not ba mu defe ne du mucc day jullit bu baax léeg-léeg yaakaar ci not ba mu defee ne jullit ñëpp koy dem àjjana tëddi ñeent xisaab diggante ñaari mënsila yooyu muy euh, xawf ak rajaa jullit bu weesoo martaba boobu doo si doo si ko wax xawf ak rajaa dañ koy wax al qabd wal bast qabd moo taxaw taxawaayu xawf ragal bast moo taxaw taxawaayu rajaa mooy yaakaar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 tedd nga am ci ñi bëgg ko ngir baaxam gi ñi bëgg ko ngir yëmandeem gi ñi bëgg ko ngir kàttanam gi ñi nga xam ne nag ñooy lu rut loolaa ñoom bëgguñu ko ngir lenn lu dul jëmm ci lañ bëgg bëgguñu lenn sax jëmm ci si bopp nga xam ne amul sabab loola nga xam ne suñ borom mooy seet mënu koo fàggu suñ borom mooy seet ku ko soob rek mu mu jox la ko nga xam ne ñu toll ci moomu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 ñi ngi sa fàttali jaam ñi xéewal yi nga xam ne moom leen yàlla xéewal ne leen bëgg leen yàlla ngir xéewal gi mu leen xéewal wadkuru ijaalakum xulafaa min baadi qawmi nuuhin ak wadkuru ijaalakum xulafaa min baadi aadin wa babaakum fi lardi tattaxiduuna suhulan di leen fàttali xéewal yi leen yàlla xéewale ngir ñu bëgg yàlla bëgg googu mooy daraja ñaareel ji ndax dañ ko bëgg ngir lëf nga xam ne kon xëy na mën nañoo misaal ne bu loola dañoon duñ ko bëggati comme ñu njëkk ñaari li gën a dëgëru bëgg kon borom ñaar euh, martabay ñaareel yooyu nga xam ne moom la yonent yi jàngale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 yu leer ak yu lëndëm bu fekkonte ne xotti nañ ko subuhaat wajhi tabaraka wa taala maanaam feq feqi xar kanamam yi képp ku ci sa bët dal euh, da nga lakk da da ngay xëm noonu nag ni mu feeñee ñii ci ay kiiraay ba ñu di ko jaamu ci ci kaw xërëm ñii ñi di ko jaamoo diine joo xam ne suñu borom nangootu ko nga xam ne seen i kiiraay yu tal la mooy mu arab yi moom lay jëm ji naan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 duru ñaata heure rek passé xam ndax laaj yi def nañu demagun ca laaj yi wala ñaari waxtu ci des seet leen num li na ngeen ko xalaat rek eggal exposé bi ma àggale exposé bi waaw exposé bi ñu daw ci laaj yi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 moom la suñu borom di wax ida raayta samma raayta na'iman wa mulkan kabiran boo gisee foofa da gis xéewal gu rëy ak nguur gu mag nguur la wax ñu nga xam ne ñoom ñooy martaba ñeenteel bi nga xam ne iman rek la ñu bëggee suñu borom maanaam rek dañoo gëm rek seenu mujj mooy dem ba jànloog suñu borom tabaraka wa taala teg ci seen bët ni ñuy jànloog weer wi suñu borom azza wa jalla ci jamono boobu dana njëkk feeñu jaam ñi ci weneen melo woo xam ne buñ dikkee duñ ko xam dañuy muslu ci mom bu leen ne may seen borom dañuy muslu ci mom waye nak boba arif woni ñom dañ ko xam waye amatu nak yi duñ ko xam bu delo nak delu ci wat ak wenen melo wañ ko séenoo ñu soog a xam ni ki moy suñ borom tabaraka taala kon bëgg borom man nañ ne lu ludul mësi am rek coobareem rek moy coobareem ndax suñ borom foor na ba nga xamne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 kon lépp loo xam ne nemmeelug yàlla aju na ci rek mën nañu loola mahbubun lillahi tabaraka wa taala alma ba taay lu murid mu ngi ne nag kon suñu borom tabaraka wa taala ci bëggeel googu nettali xisa xaaruna doomu tànta yi yàlla Moussa la woon tooñ na Moussa tooñ yu nekk adduna na fekk jigéen ji ëmb mu neexal ko wurus ak xaalis ko buñ la laajee neel Moussa nekk ba benn bis Moussa di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 suñ borom xam ngeen ne li ñuy wax jamono muy temps ak li ñuy wax espace ci tubaab maanaam béréb ak jamono ëmbul suñ ci àdduna bi it layam bu ñu la waxee loo xam ne bii boo ko seetee da koy xiyaas ci àdduna ba ne mun la am waaye àdduna bii dafa nuróowul ak dara fële ci kumbay suñ borom yi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 ko waxee woon ñetti xaaj yi dafa amit ñaari xaaj xasida yoo xam ne ñetti xaaj ba tey yeneen yu bokkul ak xaaj ñetti yoon xasida bi xam ne sëñ bi daf ko bind ngir ñu di ko jàng ca kaw nit ñi di ko dégg nga xam ne yow mi koy jàng ki koy dégg ci noppam ak béréb bi koy jàngee yépp dañoo am njëggal am tuyaaba ak xasida yoo xam ne ba mu ko bindee ba nag moog boroomam rek la daf koo suuxal ci géej gi bëggul bëti nit dal ci mu am ay secret yoo xam ne nit ñi waruñu cee dal mu am ay benn benn yoo xam ne facc na ba nit gis ko am xasida yoo xam ne am na secret yu ca nekk diis na ñëpp attanu ko waaye ci kaw dappetoo ko di ko jàngalu bari la nit ki am na ñoo xam ne mën nañoo toog liirub ñetti weer jàng xasida gu mu doon toogati diirub ñetti weer noonu am ñoo xam ne atte nuñu ñaari yoon ci at mi am ñoo xam ne mën nañ ko jàng bis bu nekk ñu ngi ay ci nit ki bu fekkente ne du da nga ci am ndigal yooyu ci sa bopp mën ngaa xam ndax lii attan ko wala déet boo ko jàngee ay fan rek yu tegloo da nga xam yow lan nga te war a kii waaye du ca lii loo xam ne dañ ne bu ko kenn jàng yi sëñ bi génn yëpp jàngalu na ko waaye nag ak yi nitam ñu koy mën a jàng ak ñu koy war a jàng la yi nga xam ne daal moom def koo fësal tasaare ko ni ko ay jëf boo kii mooy yi ci gën a bari daanaka yëpp rek ku ne mën nga koo jàng waxtu wu nekk daa ngeen dégg ñu naan xasida Ahmadou Daali googu salaatu ma asalaami ala habibi xayr lanaami koy jàng garab yi dañ lay ñaanal nga faatu ndax ñu gaaw a faatu ndax buñ la suulee ndax seeni reen muusu ci sa barke dégg nga mu ngi aju ci nit ki nga xam ne moom yéene la laab amul yéene ji rafet yéene la xam dara ku sàggan la mu di ko jàng mel ne koy fooye am na ci xam ne day fàdde day fàdde nit ki noonu danga la waaye lu la neen ñaareelu laaj bi mu di ñaareel bi moo doon ne di waaw fikre مومت دفع أنا أي قواعد لكن نوم فكرة موي خلم لكم من يدانا موي خلات سيبت خلات سيدرك دفع أنا فمي وارا تابلة خلات وقنا نيني نيني لن سا دخلات كو مو اتبالي جامك أت كي أم أت دي جامرك دفع بن سا خلات اتبالي جامك yaa ñeen fukki at ñii ne sëñ bi xamante ni yàlla dina ibaadatu dahri ila xulfin zukki la wax jaamu jamono mu ndax ci xalaat la yonte yàlla ibrahima alayhi salatu wasalaam ame woon wóolu gi muy wóolu ba nekk xaritu yàlla من تعرفون وكذلك نري إبراهيم ملك وتسمعت الذي إذ يقول من المؤمنين فلما جاءنا علي لراككم إلى آخره إلى آخره يجب nit ki nga xam ne mu ngi soog a tàmbale xalaat nekkul borom xam-xam su mu war a tàmbalee xalaat lenn ci li paase ci moom ay bàkkaaram di ko xalaat di ko naqarlu lu nattale mu ko yàlla bàyyilu yi comme ko jëm ñu ngi koy def ñu xalaat ni ko mën a dal te dara xamalu ko ne lii di la dal muy gundoo muy lafañ muy toj muy bu dagg muy tànk ndax ni mu gënul rek lay dal na xalaat yëpp di xalaat nag xéewal bi ko yàlla xéewal ba aafiyaal ko tegu ko loolu la di xalaat ni mu ko ñàkk defe yéefar ni mu juddoo ci réewum jullit ndax nit libre na waaye liberté gi matul ndax lu yàgg-yàgg du tànn jamono ji muy ñëw ci àdduna du tànn béréb bi muy juddoo du tànn ñu koy jur du tànn ñu koy yar du tànn ñu koy jàngal lu tan su do doon góor wala jigen lépp amul lu ci tan kon ni ko yalla defal ni juddoo ci rew mo xamni rew réewu ci jamono nga xamni l'islam ak ci rew moma mo gis ni muy dekkal wala nak ak baayam ñepp di ay jullit ak ñi wax ak ñi jaxatal jaxasool muy xéewal goo xam ne lan mu xéewal mënu koo gën te cant war ca te lépp lo xamne sant war na ca bo do ci santul mugal mën na caa ñëwee non ñu waxee won ci Euh, birsiis bala am ibnu baawura ñàkk sant yàlla gi ndax moom alhamdulilahi rek buñ ko tegee duñ ko teg ci balance ndax diisaay gi dañ koy xaymaa ne neen kon sant yàlla xalaat nag da ngay xalaat ñi nga xam ne yaa leen tane nga xam ne bu ñu sañoon mel na yow bu ko nga sant yàlla waaye xalaat ñi la tane da ngay bu fekkee nag yaa ngi xalaat ñi nga xam ne dañoo juddewul ci réewi lislaam nga xam ne suñu borom xañ na leen yiw wu bari boo xam ne yow jox na la nga xalaat ñu ne suñu borom defee ngay doom aadama nekkuloo ku nekkuloo unk nekkuloo mbankoo su ko neexoon mu def la ko xam ne xéewal gu gën a réy ngoog nga sant boo def la nit ñoo la xadi karam naa bani aadama wax naa suñu borom dax ila axiri ba noppi nag far boole la ci lislaam xéewale la nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu muhammadan abduhu wa rasuluhu ba noppi boole la nag fam la boole boole ci may la kàttan may la jàmm nga sañ a mën a jóg boo jugee ay nit du ñu tax seeni bakkan du ñu daw ci la fa du ñu la reetaan du ñu la xaqtaay lépp di xéewal yoo xam ne yi sa xel tax di ko xalaat te lu ñuy wax daqaayiqu ni'ami wa jalaailihi suñu borom daf koy laaj ëllëg te yang yaa ngi xalaat ci loolu boo si jógee nga xam ne xalaat ko ba am xol bu ragal yàlla ngay xalaat nag ci kaawtee fi suñ borom yi ndax suñ borom yedd na nit yi nga xam ne dañuy romb nday jor ak càmmoñ kéemaani suñ borom te duñ gis li koy kéemaan duñ gis ni mu yéene wa kaay ne gis ne war alayha wa boo dee seet nag lépp lu am nga gis xew ñu ko suñu borom indee ni mu dikkee ak sikkam ba fa jaar da dem ba loo gis rek waaru ci yàlla da nga dem ba loo gis rek waaw da nga dem ba boo dee déglu xalam wala musique ñu mel ne yaa ngi dem ba ñi sidna Omar radiyallahu taala anhu ne raa qalbi rabbi sama xol gis na sama borom tabaraka wa taala da ngay xalaat ci loolu ba nga xam ne lépp loo gis gis ca yàlla boo weesoo foofu nag ba fatx di ñëw xalaat daanaka da nga koy weesu ndax xam-xam yi nga yi nga xam ne xalaat la ko waroon a jox léegi di yëgal boppam moo xam da ngay nelaw moo xam da ngay yeewu day nga boppam ci yow ngay xam ci genn guddi loo xam ne nit jàng na ñaar fukki at te du xam genn wàlla taatam wala dem ba xam sa borom ci xalaat la xam ne borom tabaraka wa taala سن جوحنا كما تعرف جنان وقال في الإحياء خذ تبييني إن نهاية ثمار الدين في هذه الدنيا حصول المعرفة والأنس ذكرا بالإله تعرفة والأنس من بعد دوام الذكر أما التعرف بعد الفكر من وقال وحنا الإمام الغزالي في الإحياء في إحياء علوم الدين لا تلمي واحد خذ تبييني من الدايب دايب من يتدين في أدنى دايب من يتدين في أدنى حصول المعرفة خمي الله ak wéttandikoo ko mu ne te wéttandikoo yàlla danaa sikkar si yàgg si gudd nga koy am xam yàlla itam nag gannaaw xalaat yu bari maanaam di xalam di wér di xalaat di wér di xalaat jaare ko ni ma ko jaaree ni ma ko wax lu ba nga cee àgg moom la ومن ثم بعد دوام الذكر أما التعرف بعد الفكر يتلك يالا nga xamne bu adduna bépp daje woon di tëgg ay sabar di yuuxu saxaar yi di yuuxu usines yi sone dégg nga dënu gi di wàcc ñuy fetal ay bomb ak yëpp mook nga nekk ci mën di gisoo kenn dégguloo kenn ñoom ñooyam ci yow képp képp am na yàlla rek moom nga ci diggante ñaar bi ñooyam ci yow waxtu wa nga nekkee ci biir booba bi def loolu ak léegi nga xam ne da ngay dem ba nga xam ne du doomu aadama yëpp wala du ko mel ne dañu nekk sa ay jaam luñ am jox la di la raamal gis di la tagg di la way di summi seen yëf di la laral booy dox di la boot di la yenu ak ñëpp bokk dëgg di la xas di la saaga di la ñaanal lu dem ñëwoon képp ci yow booba nga yëtt li ko yàlla dëgg dëgg dëgg boo ci àggee amatu dara lu la naqar ci àdduna wala la ñetti mooy àgg ci yàlla dëgg mooy ngóor gu mag koo xam ne ci àdduna la bala àggagul ci bala ngay dee nga def ko ah hmm, xanaa loolu sax war na doy ci laaj boobu mën na mën nañoo continuer di wax di wax ba kii waaye loolu dañ doy léegi xanaa mën nañoo continuer di ñaanal ñu koy. déggale benn laaj bi moom la benn laaj waaye nu àggale boobu ñu ñaanal ak dëkk. loolu. sëñ bi. Hmm, dañ doon sàkk leer lu tuuti ci julli suba. julli suba waaw julli suba su fekkee fajar bi paase na nees koy jullee ndax dafa am ñu bari ci nit ñi su waxtu wi paasee bu tee ñu jiite ñaari raakaay fajar te ñaari raakaay yi su waxtu yi wee dañ koy war a bàyyi gannaaw bu gën a ñu doon ko fay léegi nag ñaari na ko <laughs> dafa'an dafa'an sudah aku pada jemaah محمد النبي عليه الصلاة والسلام جلس نامي جلس تقسان من الصلاة والسلام amul ci waxtu yi benn waxtu wax ne mën nañ koo noddal sunu guddi bu mujj bi bu tàmbalee man nañ ko tàmbalee nodd ngir yee nit ñi ngir ñu yawu ngir jëf ñu leen jëy ndax diggante boobu jaamu yàlla def fi am solo lool القرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ما هم لو جاء على القرآن ما هم لو يتلي ما هم في jàpp julli toog di sikkar boo ko mënul nga taxe bopp ba yeewu jàpp seytaane tekki ñaari juddu yi mu def benn nga toog di jub sab yàlla nga tëdd la boo ko mënul mënuloo sax yeewu dem jàpp nga yeewu jub di jub diggante boo xam ne mën nañ feerat bëy wala xar nga soog a tëddaat loolu lépp ngir ban nga ñàkk ci yiwu mag woowu ci biir ci jamono jooju ndax sallallahu alayhi wa sallam na seen borom day am na ay dëpp yu muy dëppal ay may ci baatin ci waxtu njël na ngeen fexe ba taatal seen mbët ndax ngeen feesal bu fekkee ne nag jëmm ji dañu ne seytaane lu njël jotee lu njël di waa jot day ñëw karawu nit ki muy góor muy jigéen ñetti létt bu yeewoo tudd yàlla benn bi ci ko bu jàppee bi ci def ci ko bu jullee ñaar rakka bi ci def fecc ko ñu dal di liibar léegi bu fekkee ne yeewu nga nga xam ni fajar jot na mën nga julli fajar mu jiitu fajar waaye mën nga naafi la kon ndoxe naafi lay guddi day dem ba fajar jot mën nga ko ba fajar jot bu fajar jotee nag nga julli fajar ñaari rakka bu fekkee ne yaa ngi ci sikkër sopp nañ ngeen ñu tuuti tëdd ci fi ngay jullee su doonte du mat sax fraction seconde nga jugaat sunnaal nañ ko bu fekkee ne bu ñu ca jàkka ja nag sunnaal duñ ko boo jullee fajar boobu nga xam ne boo jullee suba boo sëlmalee mu leer nañ doo toogu biir nga gis bi génn foofu la daruur suba yem waaye dafa am daruur yi am muxtaar daruuri yu mooy li xam ne ci biir waxtu yi la waaye ñàkk pexe ndax ñu àgg ca ba di ca julli waaye muxtaar mooy li ñu tànn nga xam ne ci la njëriñal yàlla lu gën a nekk waxtu wu am na daruuri am muxtaar li ngeen ko xam ne tisbaar waxtu yoo xam ne jant bi jeng ko na tuuti nga xam ne li jëm fii muy moo gën a néew li mu paase li mu tuut tuut tisbaar jot na lu ba nga xamee ne sa takk ndoor toll na ne sa guddaay jëm daruri yi dana diwéy ànd ak bu takkusaan ba jant bi xonq takkusaan boo xam ne sa takk loolu mat na ñaareelu taxaw ñaari taxawaay muxtaar mi tàmbali na moom it ba daróor yi ba xam ne boo xam ne euh, mat na benn kii fi nga xam ne si la tisbaar di di muxtaaram yem ndax ulama yi dañoo warante foofu fuqahaa yi ñu ne gannaaw bokk bokkaale nañu lu mat ñeenti rakka ñu ne takkusaan bi moo fekk si tisbaar ji ci ñeenti rakka yoo xam ne ci tisbaar ji la bokk wala tisbaar ji moo fekki moo fekki ci takkusaan si dugg si ñeenti rakka nga xam ne kon bu fekkee ne ma wax ne tisbaar ji moo dugg si takkusaan si boo demee ba takkusaan jot nga julli julli nga ci muxtaar bu fekkee ne li tisbaar ji dugg ci waxtu nga xam ne tisbaar jeexagul muxtaaram sax jeexagul ba tey julli nga ci waxtu muy werante wax xam ne boo jullee boo si jullee waxtu xam boo ca tàmbalee julli boo ne asalaamaaleykum day leer nañ nga xool jant bi taal tàmbalee génn léegi fépp àgg gunu foofa ñoo ngi ci darooriyum kii suba suba si nag bu fekkente ne léegi wóor na ne fajar jot na fajar ñaan ñaar la alfajrul kaasib ak alfajrul sadiq alfajrul sadiq day ànd ak ay weex weex yoo xam ne leer nañ ne jant bi jindi boo yeewoo foofu mën nga julli fajar bu fekkee nag dem nañu ba ci waxtu woowu moo xam ne xam ne boo ci tàmbalee julli suba boo jullee ñaar rakkaa yi rek yana tëb bëcc ba nga xam ne boo toogee xool da ngay dal di tëdd bi tàmbalee génn loolu bu jotee dootoo julli fajar da ngay dal di julli suba boo julli fajar da ngay julli suba boo xamee ne jant bi yëkkati ko ne ba dox lu mat xeeju arab ci yëkkati ko waay foofa la naafila di dagane nga fay fajar ndax fajar amul benn naafila ji ñuy fay lu dul farata kenn du ko fay ba mu des fajar fajar nag ba ne raxiba la ngir tuyaaba ji màgg ji ci nekk moo waral ñu maye ñu di ko fay ba zawaal jot maanaam ba nga xam ne jant bi jéngi ko ne ci digg bëccëg waaye doo yeewu xam ne suba boo kabaroon léegi boo sëlmalee tuuti jant bi daal di fenk muy farata nga dem di def naafila gi nga xam ne mooy fajar nga di ko julli déedéet araam na da ngay dal di julli suba bàyyi ba mu naaj tuuti nga julli fajar ndax fajar du farata li ñu xemmem lekk la ndax tuyaaba ju bari ji waaye suba mooy farata bu fekkee nag teel nga yow moom nga julli fajar julli suba waaye bu fekkee ne xam nga ne suba si rek a fi xaj feeg bi jant bi fi buy set wécc ngay julli fajar suba si ngay ngay julli boo bëggee nag mën nga fay fajar si feeg ci daan gisagul

gannaaw yi dëggee bi ñuy wax ne mbirum weer bi li war a ñu ñu di ko jàpp mooy dafa am ay jigéen yu rafet yu topp ci moom di woy ak di tëgg saa yu deetoo mooy waral ñu jàpp ko su ko mag ñi di digle ñu ngi ci kër ngir ñu bàyyi ko bañ a ci kaw ci kaw yooyu ci la delloo ci ci lay dellu leer naan yi mun naa dal ba xam ne nu mu demee xuraas la rek day wax day wax naa ay kër yu daal weer wi daal jàpp sax wala fi yee a wax ne nañ koy waaye du jàpp xam nañ ko ñu jàng tuuti kii xam nañ ne weer wi bu dee arab yi kusuuf ak xusuuf lañ ko wax bu dee ñu éclipse éclipse mooy lëndëmal xam ngeen ne weer wi moom ci boppam amul leer amul leer jant boo koy leeral ñu jant bi jaaree ci suñu suuf ay ceeñeeram mooy dem te weer wa leeral ne weer comme dafa am ay yoon yu muy jaar jant bi am ay yoon yu muy jaar ñu ngeen al mutawaati xutootu tawaati ak xutootu ard xutootu tuul xutootu ard nga xam ne ñu a maanaam le parallèle ak équateur euh، ak transversal waxtu woo xam ne calculé nañu ba xam ne weer wi dana jaar yoon sàngam jant bi dana jaar yoon sàngam suuf si day dox dig dëgg dëgg diggante leeru jant bi ak weer wi bu ko defee leeru jant ba du ba ñu ko leeral takk ndooru suuf si mooy tàppe ca weer wa xonk ca yu noonu leer ga ñu ne jàpp nañu weer wi waaye bu ko defee mën nañoo calculer euh, météorologiquement mën nañoo calculer ba xam ban minute lay tàmbali wala ban seconde ak kon lay jeex mu jeex naka noonu jant bi tam mooy sa diggante yow muy xool jant bi sa diggante jant bi weer wi dox na ci diggante bi ba muur jant bi ba tey loolu ñu mooy jàpp jant maanaam jàpp nañ ko léegi nag euh, tudd yàlla gi ñu tudd yàlla moom gis na la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ila kusifati shamsi awil qamar fasja'u ila zikrillah aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam bu ñu muuree weer wi wala ñu muur jant bi na ngeen tudd seen borom loolu mooy lan jullit dañoo bañ xolam jeng jëm ci dara ba lépp lu kéemaane loo xam ne nii mën na réussir moom bu ñëwee mu bañ a rëcc ndax foofu seetaan daf fi boroxlu mu tudd yàlla mu dend ci yàlla ndax ki ngeen xam ne ki nga xam ne kay lu jant ci tollu fi mu neene la ñent ñeent rakka mu tollu fi mu neene la ñent ñeent rakka mu toog <clears throat> mu neene la ñent ñett rakka ñu togu biir mu neene la ñent ñeent rakka mu jant ci dëgg gën ñu neene la julil ñaari rakka kooku kay du jant muuro wala yar man na ne julli tas eh, julli sax lañ santaane sikkar ci moom ñun ñu koy def ndax lu baax la rek waye julli gi lañ santane julli muur mom lañu yonal yoonal kon xam ne nga xamne ne bu ñu jappé jant wala yar man lu ci wara a yalla naka noonu ñu rëy lu xew a tudd yàlla mooy dellu ci yàlla lu xew rek nga dellu ci yàlla xam ne naggu suñu borom bi moo feeñu foofu nga delloo si sa xel ci loolu su ko defee dana amul dëgër goo xam ne dañu la dox sa digganteeg seytaane da xam ne du la a dévier ci genn wet moom mooy li nga xam ne mooy am. nga dafa am ay jigéen ak ay góor yu tëgg ay kama li nga toog si ñoom li bu jeexee rek. mu daal di koy jàpp di ko jar ay sëriñ ay jees yi di ko yëf nii waaye da xam nga waaye moom lii dara lu kéem naa eh, ne li ñu wax phénomène naturel rek la mu mu ngi mel na rek mu xiin wala mu tawaw wala mu ngelawaw wala daay tàkk wala yooyu xew-xew yooyu rek moom nga demee li nga xamee ne eh, dañ ko waxoon ne tubaab yi bi ñuy soog a wax noonu dem nañ ca weer wa naan mel am strang teg na tànku ci amoon bi ñu ko teg ca weer wa ñu réel ko ci ñàkk xam ndax weer rek du baatin itam ndax bu ñu woon àllaaxira duñ ko gis te du bërëb boo xam ne dafa bokk ci yàlla wala mu tedd tedd nga yoo xam ne ñu waru faa dem yore suuf see ko gën a tedd ndax suuf si ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la alquran ne ci la kaaba gi nekk ci la awliyaa laay yi nekk ah ak yeneen yonent yëpp kon suuf si ko gën a tedd nekk la te yoo xam ne di science ko wax ni limaamul Xasaali yi waxe ne mu ne képp koo xam ne da ngay weddi xew-xew yooyu bëgg koo weddee turu diine yaa gënal tooñ diine ñu ci def ndax bi nga xam ne ne eh, yi ñoom eh, eh, philosophie dañuy warante ne ndax gannaaw lépp luy tàkk am na lu muy am na koor bu muy lekk na lu muy xamb lu muy lu muy xamb ñu ne kon jant bi gannaaw day tàkk am na lu muy lakk ñu ne hypothèse la boo xam ne kenn vérifié bu ko ndax bu fekkente ne jant bi tak gi muy tak mu ngi lak dara war na am saxaar war na am doom te dana dana jeex ñu nak gisaguñ saxaar gisaguñ doom waaye jeex gi yaakaar na mënu la am ñu ne ndax observatoire grec yi biñ ko euh, tëralee ba léegi musu la tegtal fenn fu jant di wàññi ko ci tàngaayam wala ci leeraayam wala ci réyaayam ñu dal di sukk ci loolu ba jàppandiku ba ne kon jant bi lakkul dara noonu la ko yàlla bindee kon du fay mukk mu daam alxasaali ngeen ndax bala muy wax tax ne li ngeen wax du dëgg dama leen di wax ne fi ngeen jaaree li ngeen tegtal loolu du tegtal ndax benn observatoire yu garab yi la mu amee léegi matagul fukki junni at te jant bi mën nay wàññiku wàññiku boo xam ne ci téeméeri junni at lay feeñ lañ ko sa ko mën a gis kon boobu foofu jéem ngeen jéem seen réew ñaareel bi bu ngeen ne lépp luy tàkk yël te mu jërmam maanaam am na koor bu muy consumé mooy li ngeen xam ci suuf si waaye du caa jël régal yi régir suuf si moo régir jant bi moo régir yeneen biddi yi da ngeen xamul ni ngeen di wax liñ demee ba ci vingtième eh, siècle ci science moderne lañ soo xam ne jant gi dana fay bind na ñeenti milliards yi ak genn wàll bu fi toogatee ñeenti milliards dana fay bu fayee muy gën a rëy muy jën weextal te du am benn lumière ndax hélium lay transformé kon jant bi am na lu koy tëbb am na luy jeexi la ci na ci yi nga xam ne falasifa yi juumoon nañ ci te lii ci lislaam yi wan leen njuumte euh, bi nga xam ne am na lii yu bari sax dama ne misaal jot bi rek moom mi moom lépp man lépp tay tañ lépp mu may la fan wu gudd lool wa ànd ak wér ak jàmm ak salaam loolu yàlla barke dolli la sutura ak teranga jàppale la ci saahir ak ci ba lépp li nga yéenee liggéeyal islam ak lépp li nga yéenee leeral ci yoonu sëriñ Tuubaa bi nga eggale ko a mu ko bëggee di ahsanul xaal aman bi jaaxina bi ilxaasin wa bi a Seexul Xadim ñu ñaanante bopp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 جل ربنا اللهم يا من ليس بعيد فلا ولا فلا نذكره ولا اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا الا حضرته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا حرج الا قضيتها ولا جهل الا معرته ولا سقاية الا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا ولا علمنا فانك تقضي ولا يقضى عليك إنا فتحنا لك فتن فتحا نصر لك الله ما تقدم من ذنبك تأخر إيتي من مكارك جهدك صراط المستقيم فتلا نصر عزيزا وفي قريب فتح لنا كل باب كنت حياته للسالم خزئ طيب لنا أمرنا صحح لنا بدنا مشروع ودمر كل أعداء تدل بما قل من سبيل ولا كل شيء قادر على رسول صادق رسول صادق قلبا خاشعا متواضعا وإن كثيرا وتوبة قبلت مع ميت نسمة وكبر كل ما ننحو ونقصد لنا كل ما نختار ويوم لنا كل ذي سعد وذي حرم ويسر كل ذي كثير اسلك بنا نهج رشد وطرنا غليا وترنا من جنة وشيطان وكن لنا عاصم من كل مهلكة ونجنا من بلاء الله اللهم صل على سيدنا صلاة تنجر دين الله وارينا وتقبل بدنا ذلك من الحاجة التي تحرم ذلك الجنسية وتحضرنا بينك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به وتتفرج به الكرب وتنال به الرخائب وحسن الخواتم ويستوقفنا ببيت الكريم وعلى الوسط بكل حتى ناس جابت كل مؤمن لك اللهم صل على سيدنا محمد من الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله حق قدره ومقداره القويم اللهم صل على مفر الكرب مولانا محمد وعلى وسلم اللهم صل على مفر الكرب مولانا محمد اللهم صل على مفر الكرب مولانا محمد Thank you.